ñu ngi ñëw fii euh, si Ila Touba bi pour def fi ay liggéey yoo xamante ne liggéey yu am solo la parce que président Macky Sall daf ñoo sant pour ñu reboiser les deux axes la Touba du rond-point de Thiès jusqu'à Touba donc euh, maintenant on a fait presque 20 km du mois de juillet passé garab ñëpp xam nañ lu am solo la doomu aadama kon donc kontaan nañ trop si participation bi ak liguey bi nga liguey vraiment. liguey mom au début metti woon na trop parce que naaj bi tàngoon na ñax yi bëri na surtout distance bi di dox chaque jour de de de huit heures jusqu'à 19 h c'était très pénible vraiment. on a tenu mun nañu parce que le liguey tamit dafa and ak muñ donc mun nañu eggal nañ ko ci jàmm ak yo wara taxaw pour grave bi avance bu baax a baax top def suivi bu baax vraiment parce que garab yi ni euh, tali yoon bi grave bi fi ñu nekkee suuf dafa xawa a dëgër kon donc il faut bu am suivi bu am important. pour garab yi mën a pousser normalement